完美！ waaw siyaar ne leen siyaar naa leen defaal bilaahi <laughs> dafa mel ni ah ah ah ah ah ma doon xaar daa mel ni ah daa mel ni gars yi ñu ngi ma doon xaar léegi njaga kon man ci man baax na non gàllaaj bi xam naa yow la jàpp nag <clears throat> Galadiel oleh Jabra. su baaxee ci yow rek fi mu toll nii si man waaw en <clears throat> attendant Pape di dugg ma xool gars fi nekk ah Zeyna for real waaw maa ngi lay maa lay siyaar waa njaga gis naa la daa ni suma duggee ci mbir mi kay léegi mu mu féete boor waaw gaa ko lu tax nga mën rab <laughs> eh man duma rab damay ruube <laughs> bëggee naa la njàpp junior danseur maa lay bëggee bu baax waaw mami tamit gis naa la maa ngi lay Ndiaga man ci man baxna après yow su nekké jek na ci yow rek ñu démarré billahi mami bëggeewaat bëggeewaat na de mën nak wa baaba sa bët rouge na de gëj nelaw rek. bilaay. waaw mais lii nan la mën a nekkee. Ah. waa Ndiaga. ah Baba Dawul Thiaw Baba Dawul Thiaw Baba Dawul Thiaw. Baba bi. <laughs> Dawul Thiaw Baba Dawul Thiaw. Baba waa Alaaji ci loo nekk. sant yàlla gërëm sëñ Tuubaa Fall tawfeex. na yàlla saxal ñu ci loolu ay loolu lu baax la moom. naka sa bor ba lépp jàmm. waaw sama bor a ngi nii maa ngi koy bëgg fay mais quoi. Ah. xoo bor. bu kaa rek leerul rek da ngay dekkale dugg famille dugg rek wéeru du suuf yëpp. nga man sa affaire consulat yooyu ngay des. Ah. daf ko waa Olympique de man faalewuma la. man fii laa bi nga doon rab ay. zinzin gauche zinzin droite. <laughs> ñan nga ñu <laughs> man waxul bëri ñoo la faale de man faale wu ma la. si nga bi nga nekkee final zinc zinc gauche zinc zinc droite j'étais là. mais eggali mais eggali. boo boo eggal boo eggaliwul booy dañuy eggali de léegi booy eggali dañ doon rab ay ay ay rab yu graaw ay naan non naan nan la tuddee ci seen sound boobu noonu. ñun la booy kaan ñun la booy kaan. yaa ngi fàttaliku son boobu. ñan ñoo way loolu. baba ñëwee loolu. baaba. baaba baaba baaba baaba kontaan naa ci déggante bi nag bàyyi ko. waaw mais fii la rawee nag maam namoon naa nag gëj nañ gisee quoi gëj nañ gisee. parce que borom naa ci déggante bi. dëgg yàlla loolu bëree bëri. bu téléphone bi nii teg ko. comme ça a waxtaan ak yow. Baba, yo, y'a invité ce live, mais m'a poser question. Hein. Soit pareil, tu vas conserver le live pour les gens qui n'ont pas eu la chance de regarder en direct. Non, comment on peut faire Soit pareil, tu vas partager, tu vas supprimer. Moi, demain, je vais partager, je vais Ok, bon, pareil, je vais le Non, je vais le faire. ah, Oui, sawar na yow yàlla yàlla yàlla dara laaj. Hmm, xaw ma lu bëri de. yow muumin nga daal. lu bëri xaw ma ko. <coughs> yow daal alaaji muumin nga daal yàlla toppeewu dara. ah. sama waay la nag. loolu li mu waroon toppee sax daf ma koy baal. Bra, boy, on peut, on peut enchaîner, on peut enchaîner directement comme ça Je bañ jël sa temps vous bari parce que je sais que y a un certain lamb Je kan nga supporter. non ñoom ñaar ku nekk mën na daal. ñoom ñaar ku nekk mën na daal. <laughs> dinaa ñëw ci ban xelu dof moo la ci Mami Cobra ak euh, Mam Ndiaye Savon mais juum nga daal juum nga daal alaaji nit da ngay ne nga. dimbali yàlla ak yoon xool foofu esquivé ko rek waaw foofu xoolal defal nii rek esquivé ko rek ñu ñu wéeri ñu toll nii saa yi ah doyal naa sëkk doyal naa sëkk mais bon l'autre jour euh, dama nekkoon Mbour di enregistré Aaru Mbedd ak waa Akhlou waaw je pense que tu as dû regarder pour ñi nga xam ne ñu woon je vais vous mettre un peu dans le contexte dama dem seeti waa Akhlou parce que quoi qu'on puisse dire, c'est Arlo Brick et Ngaka Blindé, la plupart du temps, actuellement, qui euh, sont un, peu l'actualité. Il y a One Lyrical aussi qui a un peu tapé sur la porte de Ngaka, mais Denga Wahne, non, Parego, après Parenasi, moi je me suis dit, mon ne gagne pas quoi. Bon. Alors, bi ma demee c'est Akhlou Brick Paradise ñu waxtaan sur une émission quoi normal ba dikk si partie parti ma leen di laaje mm. mais y a waxoon après Magal, c'est Magal romb na gàmm romb na léegi ouverture des classes romb na boobu ba léegi ñu ngi leen di déglu parce que yéen a waxoon da ngeen koy neex ah boobu ngeen yàggul jeex bi mu rombee yàggul ci comprendre léegi bi ma leen waxee loolu ñu ne ma en fait yow yaay la l'affaire bi quoi man leen man su ma demee dinaa wax Ngaaka Blindé tey ci jeudi bi loolu laa bëggoon euh, ne leen su wax ak mom tay ci jeudi bi s'il le faut ñu def ko ci nawet bi jeudi ci nawet bi wala euh, sam vendredi bi comme ça bu ko défé ñu xol nuñ koy gérer mais jaam ak pexem yalla ak dogalam je me suis réveillé la mat euh, la matinée du jeudi ñu ne ma Moumi Seck soxna su Bougane dafa génn àdduna ma ne c'est pas décent en fait mm. di def ay live di wax ci ay waxu clash alors que xam nañ xam nañ accord bu mu amone ci culture ak euh, nu mu nu mu nekkee nit ku baax quoi mm. donc mo taxone mané ne bay ba tay ma wol comme ça nga léral ma parce que toi aussi tu me dois des explications. tout à fait. parce que ñom nénañ yow clash nga leen mais clash bi nga leen mujjé clash ni pic la te ñom pic pic lañ koy tonto, yow bis bo la jaralé nga def leen son kon affaire bi si yow la tardé quoi d'après ce que j'ai entendu d'après ce que j'ai compris yow ya tardé la bi baba loy xaar. man mën naa laaj wala man amu droit laaj la yow. man mii ngay laaj. boo ma laajee lu ma mën tontu dem. ah doo ah, ma waaw laaj ma. kon kon jarul ma laaj quoi. laaj ma laaj ma ah. laaj ma. ok léegi yow d'après yow sa analyse boobu depuis màggal gi màggal gi gàmmu gaamu picc lañu sànni xam nga picc lañ koy delloo ban analyse ngay am si loolu. bon peut-être mën nañu waxtaan ak seen staff ñu ne leen baaba mënu leen a pic après ngeen tontu ko son wu lëmm c'est comme si ce que vous avez loolu rek ngeen amoon lu ngeen doon xaar wala ngeen ko yàkkam ok comme tu dis ñu pragmatique ñu pragmatique pour euh, pour jàll si leneen ah ok comme tu dis j'en profite ci ci occasion bi pour euh, pour jaale disons voilà quoi Sénégal bi yëpp ah moom i moom i Seck moom Gueye donc comme ni nga ko ni nga ko waxee nit la boo xamante ni Sénégalais wala dem bi nga mais il y yalla ak dogalam te qui kenn du ko profité di frère aussi famille Mohamed di ko Bambali tout le monde parce que man en personne voilà nañ liggéey nañ projet ba ci daw rek mo liñ doon def ci Fatel projet

awma won temps pour liguer ko ci weekend bi ñu ndax décès et comme je dis donc la euh, communauté bi nga ngi may suivre nañ ni donc aussi euh, groupe bi wax xam man dama tour quoi à vrai dire dañu groupe bu crédible ci sama bët quoi dama la koy wax directement xam waaye man Akhlou Brick man ci sama bët duñu am nañ talent nag ah crédibilité ak am talent bokku la am nañ talent respecté naa leen en tant que ay artiste mais crédible ñu ci sama ci sama bët man en personne c'est-à-dire te game bi man maa ko bëgg xam nga man maa maa ñëw maa ñibbisi maa def projet maa leen sànni pic bi ma leen sànnee pic ci jour bi pic boobu noonu coono bu leen coono bi ma leen yem ci pic bi ñu dem seen plateforme yëpp publier ne may ñu après gàmmu may ñu après gàmmu est-ce que loolu mooy génneel ñu son après màggal màggal di moins may ñu ñu jaal ci ab ci màggal gi est que loolu mooy may ñu son ñu jige ci màggal gi Sénégal yëpp di leen xaar pour ñu génn moo xaar leen ko neen màggal gi xanaa dañ koo aj ñu ñëwaat nañu may ñu après gàmmu gi may ñu après gàmmu est-ce que loolu wuuf bokk na ak may ñu son picc nga ñu santi xam ñaari olof yooyu mhm. bokkul après ma gis nañ nga jël leen seen plateau ñu ne non xam nga baax picc la ñu sànni te ñun picc picc lañ koy tontu mais wax wax leen ko loolu boo leen ko wax buñ ko waxoon ci bu njëkk buñ ko waxoon avant màggal gi lendemain ma may leen son lendemain maanaam kon ñoom ñoo ko yàq depuis màggal gi suñu ma ko waxoon le lendemain ma may son mais dem sénégalais non lañu lañ koy tonto mais wax bu ñu eh, ah. il faut avoir quand même l'honnêteté de dire que ñom avant ñuy wax ak man dans jeudi bi passé wax naa ak Malick Ndoye yow yëgoon nga ni ñoom yow dañuy xaar nga defal leen son parce que Akhlou Brick c'est pas Ara ak Deyza kese c'est tout un groupe am na ay comme yow ni nga nekkee ngaa ko blende je sais que am na ay dizaine de personnes yoo xam ne ñu sa ginnaaw di liggéey y a une machine derrière ñoom ñoo naan leen mais Baba waru leen a génneel big ngeen defal ko son non mais non mais non mais stratégie boobu bu nekkee seen staff moo leen ko conseillé ñoom dugal nañ leen ci camp bu mais yow léegi non man li tax ma lay laaj mooy li léegi ñoom dañ ne son la ñuy xaar yow da ngay continuer wala continuer wu wala ñu xam lu leer quoi ñu avancé. da nga leen di jox son. xam nga gis naa leen si Malick Ndoye xam nga man gis naa leen si Malick Ndoye. waaw Malick il a il a il les a. interviewé bu ñu waxee dara sax damay jël li ñu wax dagg ko. dem wax noonu pour wan sama communauté man yi may suivre ne leen yi lii la ñu wax mais bi ma leen gisee si Malick Ndoye dama dama ne ñii man ñii ñii man ñii lañ quoi. <laughs> c'est que gaaga yi da ngay jàpp waa axlu biri te la ci jiitu ah, parce que jeudi passé bi passé. léegi dañ la foofu dañ bi ma leen gisee si Malick Ndoye ne ñii après xam nga après affaire bi soof ma quoi barki yàlla soof ma quoi. ma ma ma bàyyi mu jàll ma gisaat leen ñu defaat aaru mbedd yi répété waat te ginnaaw suba bu leen biisu ngoone jëlaatoon dañuy waxaat même chose mun nañ ko jàpp foofu fii ba deux ans ngaa ko pig la ñu saani ah ñun bu ñu xamul saanee pig pig lañ cee tontu. a léegi yow looy xaar bu ñu bëggoon soxlaat depuis màggal gi. laa wax ni ma jox waaw bëgg nañ son wax nañ ko yow dégg nga ko man dégg naa ko ñëpp dégg nañ ko son lañ bëgg ana son bi da ngay son wala songo est-ce que jar nañ defal son yi jar nañ ko kay yow yaa wax ne yow yaa bëgg classe bi ba tax nga bind nga nga dugal leen nga nga xam xamu ma la xam xamu ma la ni est-ce que jar nañ jar nañ defal son wa parce que ñi li ma leen en fait y'a pa duma leen def sax quoi duma leen def lool y'a pa jël mo duma bëgg sax wax lool quoi parce que ku nekk xam na situation bi demee comprendre xam nga dégg naa leen genre tu tu es au courant normalement que am nañ man ak ñoom deal pour le 2 décembre. waaw léegi loolu di nga ma si leeral mais déjà ngaa ko yaa ngi tëb question bi te rombagoo leeralagul da ngay defal son Akhlou Brick wala sa yoon nekkul ci son boobu ñuy wax. déjà nay métti daal posé de boo ko répondre ba pare man am naa yeneen question non non maa ngi xool si commentaire pour xam ba xam dama ngay yow commentaire yi rabuñ yow yaay rab non dama ne la classe dama ne la seen dama ñoom yow yaay classe rek axlu birig man classe axlu birig xam nga moo dama ngay def classe axlu birig du ñoom yow yaa waxoon doo tudd axlu birig léegi tudd nga leen yaa ngi nii waxoo doo tudd non dama ne la naa la ñoom wax naa ma ko doon def parce que sénégalais dañ ko bëgg déglu que ko dama ñëw saa mhm. nekk gis ñu sénégalais yi xam nga génnee ne waa nañ génn nañ génn nañ génn te man dama affaire li may def c'est man soo xoolee. waaw léegi de liggéey lépp. ñii seetaan live bi yëpp su ngeen bëggee ngaa ko def son wax leen ko ngaa ko defal son. même si ngaa ko defal son. bu la influencé kenn bu fekkee ngeen mu def son defal son. bu la influencé kenn bu la influencé kenn. waaw damay muy bëri. ñi bëgg laa wax non su ma gisee dix commentaires dix commentaires dix commentaires waxuma la ay gars yi dix commentaires yu ne defal son. suba ma génneel Akhlou Brick bomb suba balaa vingt heures wala balaa vingt deux heures balaa quatre heures du matin ma yan leen problème. waaw léegi ngaa may ma ma compte defal son nga wax rek defal son. est-ce que dégg ma ok. waaw non waa déglu ma. waaye waa dégg naa li ma wax. Euh, Alaaji. wa may ñu ñu compte. <laughs> gars yi defal son rek la war ngaa ko wax bis. bu ñu rusloo waaye. waaye mais ñii di wax ay bul def son moom aussi yàlla ngeen dem safara yéen ñëpp. Biggie defal son 1 gaaw len gaaw len commentaire oui 2 nga wax son vas-y 3 defal son 4 defal son 5 mbay defal 6 7 8 mo laisser 2 defal son defal 9 10 defal 10 yaa waxoon dix ah douze a ngi noonu defal son douze treize léegi leer na def da def son suba wala defal son suba ngaa ko yow laay waxal defal son pare na allo El ana moomoo fu mu nekk mi ngi studio wala moo ko nee mu jël taxi wala nga dem jëli moo ko s'il te plaît. tey sa galada ay tee. wala moom baax na ne dans dans heure de temps. dans une heure de temps. da ngay dem studio nii. vas-y let's man non ñoo tax may game est-ce que comprendre man sama lépp man géemuluma rappeur géemuluma hip hop géemuluma man. na lu dul sénégalais yi soo xoolee sama liggéey di ngay gis sénégalais ci sama biir liggéey tant que ñu ngi bëgg liñ bëgg dama koy def. léegi yow comme suba da ngay génne son vingt heures si kàttanu yàlla su yàlla defalee jàmm may ma xel bu balaa suba vingt une ñoom bu yeboo ñu toog suba balaa vingt une di jot dinañ ma dégg. vingt une suba di nga génne son ngaaka. su yàlla defee jàmm li gën demee leen di balaa vingt une di jot ak lu birig dinañ jot seen son bi ñu laaj. pour gagner, je me devais de venir te rapporter. non non nous euh, nan la sommes dafa am nous Brick ben wax ma en l'occurrence des ak Ara waaye yow que ñaar kan nga ci préféré xeexal sax ñoom ñaar classante bi kan nga ci Ara wala non mais nañu waxante yàlla rek déjà bu yaboo ka moo ko benn affaire de bu yaboo moom tamit mu jug si carrière am de gis nga aara bu ma ko dugalee si clash daaw ba léegi mu ngi si bàyyi déjà de <laughs> yaa ngi féewale ñaar ñoo xam ne xajoo seen diggante waxuma la loolu kan nga ci soxla laa yaa ngi jaxase ñoo xam ne xajoo seen diggante non yaa ngi jaxase ñoo xam ne xajoo seen diggante déglu ma laa la affaire bu saytaat da ngay bëgg a jaxase ñaari groupe ñaari nit man su ma doon am lu ma gën a dégg dégg dégg dégg dégg ñoom ñaar dañuy génn léegi bu ñu ko defee dañ naan non dañoo sot soto parce que baaba kenn la ñoom ñaar ñaar lañ mais comme que aarat ñam na moom li mu war a ñam ba pare dans ak lu biri mais day na génn si sinon bu yàggee nii dina nekk ci figurant mooy ñoo ñuy jël di leen woo di leen fay ci clip bi Déjà moom ngay wax <laughs> dafa am. non proposition bu mu def. waaw non déglu ma. Déjà moom ngay wax dafa am benn proposition bu mu def nee na dafa am benn gain bu tudd Eric Favre daf leen proposer le 2 décembre benn événement bu muy organiser MMA. pour ngeen war fa jouer. moom nee na soo nangoo ma wax la soo nangoo ngeen def ko bu ngeen soppali ko Boubacar c'est-à-dire octogone ngeen xeex quoi mu duma yow est-ce que nangu nga xeex maanaam teg micro sol ay gants xeex quoi yow est-ce que nangu nga loolu. Euh, euh, dama nday wax si ñii quoi barki yàlla. Eh, eh, dama soxla booy bu saaga waay. non non non non non non <laughs> bu ma nday bu ay nday si sama non non. ah dama foog ne dama nday wax si ñii nga dama ne dama nday wax si ñii. bii nga doon clash ak ara di saaga ba yaayam naan noo kii du dafay saaga yow looy saaga di clash ngay saaga. What the hell? What you laughing, nigga? non gis nga aara aara barki Serigne Touba Mbacke li nekk si live nii moo tax mënu maa wax lu parce que en fait j'ai un peu disons voilà quoi j'ai du respect ça pour nit mais demal nga déglu son mooy son bi ma les yenee effet secondaire mooy son bi top topp xaw ma effet mer la tuddoon xaw ma corner flex. Mm-hmm. mais demal nga déglu ça boobu Quand xam nga ñoom man dama leen di def bëggul à chaque fois C'est par force dañ par force ok Soit demee soo c'est une première sortie dañ ñëw ne waaye ñun dañu clashante ak artiste buy saaga mooy jën jamono ñoom ak Rifu mooy jamono boobu noonu ñun koy saaga bu amee amee ay rek dañuy bàyyi quoi ñu génne seen effet boobu ma teg leen effet secondaire waxtu lu ma neex te dañuy génn par force parce que man géef laa xam après bu ñu génnee boo demee wax na ma lu ko neexaa ah. <laughs> man wax na ma lu ko neex sama ba ñu saaga. non sa yaay.

mais lépp loo xamante man leer na ma ni mën na neexal sama man def waxuma mais man li def lépp lu ko mën a neexal dama koy et je te dis encore une fois j'ai un public boo xamante ni dafa am lu xam ci man am lu bëgg ci man am lu ñu ci man su def sound dafa lu ma ko dafa lu ma ko dafa lu ko mais dama koy defal public Ngaaka blend bi nga ni ñu ci àdduna bi bëgg Ngaaka bëgg

ay ay ay prêtre lañ seen choix la ñi jël choix wu ne ñoom dañu nekk ci rab bi ba pare dañuy garder la casquette de la rue seen choix la ku si nekk choix bi nga jël man dama la koy respecté mais du benn artiste laay séqal game mu may wax man nan laay defee. ok après non même rek si benn affaire parce que parce que loolu loolu jaxase la ak ni ñi la parce que dégg naa ko mu ne waaye booy bi fi mu naan génnee néegu góor dugg sa néegu maam dugg sa néegu yaay man ak sama yaay seetaan koo xam nga ma naan booy bi dafa koo mais lan en fait tout est codé man su ma demee bay saaga sax kaay la de même su ma duggee ci son ba war ba war a war a ñaan ñaani day neex nit ñi koy dégg lu leen neex xam nga te ko jël di ko jëmale fenn damay fexe def ko ba nga xamante ni du ma dépassé kenn parce que gain bi man la ak ñoom mhm. loolu man la ak ñoom jël ma jox sama maay bi neex na non saaga su ma dugaatee tey studio mu naxaar lu nekk la xaar lu ne. lu may vingt une heures wax di nga son mais ben, affaire bi déjà wax moy est-ce que seen événement bobu ngeen am parce que man Eric Favre sama gain la. mun naa ko woo daaw invité woon na ma si événement bi mu amoon euh, musée mhm. demoon naa si affaire box yooyu mais ren est-ce que bu leen Eric joxee ay gants ring nga tànn kenn si Akhlou Brick on fait un truc mec bani quoi franchement ñu teg benn genre affaire boo xam ne dafay am rab beeg tu beeg. yow ak lu parce que man. man xam nga lan moo tax ma sawar bi ma waxee na ma. non attends dama lay wax man yàgg na am clash su ma si waxee rek je fais une analyse dans le glo dans globalement mais su ma leeree ne xa clash bi mën nga si make money ak lu bëri make si money ma make si money whatever you want dama lay wax benn affaire est-ce que pare nga pour ñu make si money ñu def ko back to back c'est-à-dire kii taxaw jouer ay soom kii taxaw jo ay ngeen dem bugguma loolu ngeen back to back leen neexee ngeen wàcc takk ay ring Ara nee na déjà autant pour moi nee na soo ko defee bu duma la yow est-ce que pare nga pour def loolu. Pape Sidi Pape Sidi. waaw demal demal géejawaay bi ma dëkk yaa ngi dégg. nga def micro nga def micro trottoir wala nga dem sama koñ. Pape Sidi man sax. waaw sama boobu yëpp sama boobu yëpp ak ay sigaal ay xeer. man su ma génnee sama gaal man heure bu mu musaan génn sama gaal rek su may ñëw damay ànd ak mbooloo xam nga ndax may ànd ak mbooloo. soit soit man nokku naa nit nit ñi ñëw pour boole wala man ñu nokku ma ñu may indi mooy xam nga xam nga dërkiis mooy nit ñooy xam ne tawbooy dañu dërkiis mooy dañu ës. mais nag pare nga waxuma sa histoire bu tawbooy parce que xeetu tawbooy tànn un autre cas dire que yow mën nga def mën nga mën nga def combat sur le ring ak waa Akhlou Brick. dama ne la bu ñu demee ci xeex. buñ demee ci xeexu mbedd laa buñ demee ci xeexu mbedd mhm. ma duma leen waaw buñ duggee ci ring ring ring ñu kickboxing buñ ci duggee buñ ci duggee ma duma bu nekkee Dakar la bi ma leen duma ba bombardier ñëw jël si leen si yaa ngi dégg buñ demee ci rap rap kese kese kese ñu gëmm ni fatt samay nop te samay bët jox ma bit kese kese kese kese ma duma te bu fekkee Eric Parana, na wala ñooñ noonu di nga xamante ñooy tëgg affaire bi la def pare nañ. man kay yaa yaa ko tere neex man boo d'accord léegi moo Eric voilà dama lay wax benn affaire comme da nga annoncé ne da ngay génne son suba soo génnee son dinaa xool la réaction de Akhlou s'ils sont réactifs par rapport à ça man j'appelle Eric Favre je lui dis Eric combien tu peux mettre sur la table pour un back to back Ngaaka Blindé Akhlou Brick Parana est-ce que pare nga parce que ñoom nee d'accord nice man yow si yow la des yàlla xam nga ñoom wax nañ ko ngir yàlla buñ ci dellu naa xam nga dañoo taamu di wax ay affaire buñ ba ci biir tam-tam ñu ne non seen kii imaam koñ nee na non xam nga duñ bekk bekk parce que xamal yi pour ngir yàlla buñ ci génn Pape Sidi man lépp lu ma mus a wax ci musique lépp lu ma mus a wax dama koy def noonu laa mel de ci live lépp lu may wax dama koy def te li may def dama koy gëm ngir yàlla buñ bu jaay ñëw nii pour war a signé ñu naan non waa koñ bi nee nañ wala Bombardier nee na wala xam nga naan ngir yàlla bu ñu eggee suba nii nii nii nii seen mbokk yaa ngi seedaan wala ñoom ñu ngi seedaan nañ dem toog studio xaar ni suba su yàlla defee jàmm ak salaam balaa vingt vingt quatre heures incha allah rabi dinaa leen may sound te ma teg si leneen bu ñu ñëwaatee ñoom avant vingt quatre heures bu ñu xëyaatee balaa vingt quatre heures ma tegaat leen si sound suñ bëggee ñu dem ba non cette fois ci sax du ma sore ak ñoom quoi parce que coow sax day bëri mais bu ñu ñëwee vingt quatre heures benn déglu ma bu baax a baax li may wax 24 heures benen, bi buñ ci tegee une heure de temps bàyyi naa <laughs> une heure de temps. en fait dama am benn affaire bu ma bëggoon wax dama am benn affaire bu ma bëggoon wax dama am benn affaire bu ma bëggoon wax. clash dafa bokk ci ay préceptes ak ay principes hip hop donc vous pouvez le faire de manière hip hop public bi di 15 parce que gymnastique intellectuelle en 24 heures de jox en 24 heures nous delloo la ngeen taxaw ci ligne ku nekk yor microphone def back to back on a vu euh, ay ay ay ay orientation bi ngeen orienter le débat Euh, na ñoo bon c'est pour créer peut-être du contenu moo tax ñuy wax naan waa Ngaaka tontu la 24 heures mais dafa am au-delà de ça Ngaaka Blindé représente toute une communauté euh, Akhlou Paradise représente toute une communauté c'est des patrons de sociétés, ay nit ñu bari ñooy liggéey seen donc c'est pas des guignols en fait je répète ça pour rassurer mais yow man je m'attendais à ce que clash clash ku ne Bon, des One Lyrical parce que One Lyrical je vous connais vous êtes de bons amis quoi. non je ne sais pas ça rek sama gars la ça change pas One. One ah. dafa am lu doon peese rek. wax naa ko si salon ok. xam nga daa doon peese et c'est normal quoi mooy li ma wax rek toll na si benn période boo xamante ni tu xam nga loolu laa jàpp man ba nii may taxawee jusqu'à la preuve du contraire jekk saay naa et je me je me je me sens un man képp ku wax lu jëm si King si gis sama moo xam yi ma tontu ak yi ma tontuwul et bi ma ko yëgee avant may def dara woo naa ko jëlul message de jëlul ma message Instagram et au début genre c'était juste pour euh, pour le fun quoi ma ma quoi tu vois quoi tu ma mais bon bon bon, c'est du bluff. en fait j'ai dit peut-être li amne l'imbogon, lu tu vois et li peut-être am ko mais da koy am d'une manière voilà quoi vraiment sérieux, tu vois parce après voilà définitivement actualité les gens ont parlé de lui xam nga am audience am def na ay chiffres yéeg tu vois mais après voilà quoi baaba c'est baaba quoi xam nga ñi nga xamante ni am nañ conseil sen staff di len conseiller nañuy bay di dugg ak man ci ay game clash nan noonu la jàngee rap mën nga ma daax lu nekk sauf clash parce que ni koy défé ak ni koy dundé xamul xam nga ni koy topé amuñu jot bobu amuñu temps bobu ba amuñu sax amuñu sax wala en quelque sorte. tu vois. su ngeen ñu man parce que rapport apport franchement ça ne ça ne nous mène à rien ta mag ci ndox mu fekk mu am dara. Si tu es prêt, Alubric a dit qu'ils sont OK. Toi, tu viens d'avouer que tu es OK. Je vais programmer un jour que je vais communiquer. Je vais inviter Eric Favre. On va vous donner énormément de millions et vous allez en faire un vrai business. Vous n'êtes que back to back. Le public viendra pour juger qui de vous deux, entre Alubric et Ngaka, qui le remporte. Tu nous as promis un son demain à 10 à 21 h son.

dañ am bonus pour dem nawlet 8 bu ñu paree nawlet 8 fexel Eric Favre parce que genre man maa ngi si biir projet bi euh, te bon je dit xam naa li ñu bëgg a def bu fekkee ni ñoom pare nañ pour def loolu nañ ñëw Eric ñëw ak disons xam organisation et tout ñu rek la loolu mu jeex et incha allah rabbi le 2 décembre su ñëwee ku nekk na sol ay gaawam ñu dugg ci ruñ bi lépp lu mu laaj man ngaa wax pare naa pour def ko mais combat <laughs> bon le fait de dire un combat ça va être un combat intellectuel un combat intelligent un combat des mots un combat du beat et le public viendra juger de qui de vous deux peut-être non mais mais après xanaa ngeen dem commencé entraîner xanaa ngeen dem commencé mais yow yow mii yow bu la ngelaw bu ëppee nga daan Pape Sidi méttul xeexu mbedd mais kickboxing du xeexu mbedd waaw léegi da koy jar man daf may jaral man daf may jaral man en personne barki yaa man daf may jaral dem xoola man daf may jaral daf may dem def dem dem def commercial bi jàng ko mokkal ko daf ma koy jaral de fay jàng ko mokkal ko ngir jour ba ñu public bi ñëw assister ay ticket wala su wala la I don't know xaw ñu ñu jox ma kenn par kenn su leen mais nous nañ ma jox kenn par kenn. mais kenn sax lay jël nga soto ah mais ñoom mun nañu de parce que man Abdou Brick dama leen a fekk mbuur ñu am benn salle foofu noonu de seen gàll bi am na salle de xaw ma ndax yow fooy entraîné mais ñoom dañuy entraîné de. non yow sa lendemain mariage am na tërëf boo fi tërëfoon yaa ngi fàttaliku tërëf boobu. non non non loolu loolu loolu pression la woon rek mooy bu kii bi virgule bi. waaw loolu waaw loolu pression la woon rek xam boo duggee si mariage booy xam nga jëli message si xam nga pression la woon rek loolu. ay di fi ay Raji Raji fi gang bi war la top nga tak ay gants lolou lay imaginer ni mais back to back bi de l'aurais aimé quoi. Parce que pour la première fois dans l'histoire vraie du hip-hop sénégalais, on voit des choses de votre tranche. Non mais sérieusement. Sérieusement, oh, pour la première fois, Manara Giscon, Boumen Nango ñaar je vais en parler avec Eric, s'il est d'accord on a on a fait un live pour informer l'opinion mais ce sera peut-être pour la première fois ma gis ñaari MCs yu jàkkaarloo ñu tegal leen beat ku DJ on te donne un temps bien déterminé bu nekkul une compétition ñu def back to back et le public a le droit de dire tel à tel tel mot que tel mu quoi non blague à part euh, ak game à part disons ça va être magnifique et ça va être vraiment non mu Ouais, mon nek lu nice pour le hip hop quoi disons black à part parce que ouais hip hop sort nañ am profil boobu quoi sort nañ une image boobu quoi je pense que ñun ak euh, génération bi ñu nek ñun ñoo wara innover les choses quoi C'est après mine de rien après ils ont leur propre communauté quoi am gars yi gars donc man loolu dina ma et j'aimerais bien def ko wala ma bok ci premier artiste sénégalais pour ne pas dire Afrique yo xamanteni ñoo am back to back back to back boobu mu nekk ring gaa ñëw taxaw play beat wala play sound public bi ñëw xam nga gars yi bëggee quoi mu nice parce que place son par son yi nice na mais soxla nañ gis ngaa ko Blindé taxaw ax lu birik taxaw ku nekk wane li nga mën a ku mën sa morom du ma ko. ok on va créer à partir de maintenant des. Euh, des ambassadeurs du du du du back to back comme ça nga ñoo xam ne dañu may jàppale comme ça bu ngeen naré bàyyi ñu fatali leen seen wax ji ngeen fi waxoon Akhlou Brick wax nañ mu ngi ax aaru mbedd jeudi passé. Mm. ko Blindé wax nga mu ngi en live s'il te plaît ne supprime pas le live parce qu'on le fait sur ta page je veux que mu am ay preuve que yow ya waxoon ne di nga def donc j'en appelle Abba No Stress Kheucha euh, Las Gandiaye tout court gars yooyu nga xam ne. dañuy euh, clash bu amee dañuy jël clash bi yenu ko xaw ma lan moo leen amal ci classe. waaw ñoom ñooy ruux booy yële. mais ñoom. yow dañ lay ruuxaale ñoom nañ ci bu yàgg. yow dañ lay ruuxaale yow. kan man. yow yow dañ lay ruux. yow fan nga gisee yow. kañ nga gis nag benn classe boo xamante ni Baba Ndiaye marque man man ñi ngay wax ni genre nit yi nga wax du yi ngay wax yooyu noonu mooy ay DJ Kheucha ay Lasga ay Aba xam nga ñooñu genre nit yooyu noonu man ma leen topp topp ma leen sax. yow xam nañ ko sax. <laughs> yow ñooñu rek ngay yaa ngi nii dem di dugg classe ak maam Ndiaye Savon ak kii nii nu mu tuddati. waaye li ñu waroon a xiip wax ko ba mat na. non Mamy ak maam Ndiaye Savon classe la classe classe la. ma ne est-ce que li ñu war a wax wax nañ <laughs> ah, moom ruux. waaw dëgg dëgg rek la non mais man du ma dalee gis classe ba léegi laa xam ne mais yow loolu dof dugg ci ñooñu yow. pourtant waxuma leen garaaw mais naa nag. waaw baalu leen ak baalu leen ak ndax baal la. balaa may baalu ak kenn damay bàyyi ba son son yi génn ba ma déglu ba pare xool ba xam benn xale bu jigéen dépassé na ma wala dépassé wu ma. naa bàyyi ba sooy génn dégg naa daal doo ko defati mais damay bàyyi ba déglu son ba sooy jeex su may jégalu jégalu su may mer mer su sis siisu siisu. léegi yow booy jégalu na nga fexe ba muuru comme gars yi ni ñuy jégalu da ngay muuru rek toog daal ne mbokk yi se ngi leen di ziar di jégalu. mais nag mais nag c'est fun quoi en fait Sénégal dañuy soxla dañuy soxla genre affaire yu mel quoi tu vois et ça prouve que hip hop bi aussi mi ngi am. ni avons toujours ampleur ni toujours voilà parce que dans nañ def son bam tudd ay nit te nit sax et aujourd'hui quand tu fais le morceau tudd ci ay nit nit ñi gis seen bopp morceau et comprendre c'est quoi le clash bam jaral leen ñu studio def ay morceaux donc ça prouve que voilà quoi hip hop bi hip hop bi mi ngi mi ngi mi ngi évoluer quoi donc lolu pour man ndam la pour ñun et aussi ndam la pour sénégalais parce que d'après tout réew la bu xaw metti bari pression bu yoy non di am gis naa ko sénégalais di di téyé ak ñu koy dundé quoi. bon y a énormément de clash tu es rentré en clash avec plein de personnes mais bon aujourd'hui dama bëggoon man xam nga du ma dugg ci clash te dugg ci noonu waxoon naa fi ne dañu am benn concept de tudd big clash donc su ma gisee benn gànnaar boo xam ne daf koy matérialiser mu leer ma ni kii suñu ko appuyer euh, war na ko mun def. je mets tout ce qu'il faut de mon côté des chances du côté du hip hop parce que bu ñu tegee par exemple je dis n'importe quoi suñu ñu tegee 15 wala 20 millions ne ko gañ jël yow ak lu Brick Paradise soxla ngeen 20 wala 15 millions. Mm. sa clash yi dañ siy faral di tudd ay nit mu nekk ay références wala mu nekk ay kaañ mais gars yi dañ koy jël icto facto def ko clash te ça c'est pas l'heure du jour comme arumbe de bi di ñëw du ma mën jël parce que da ngay dem studio bi si top, aaru de jël bi di ñëw bi si topp dinaa la jël bi di ñëw damay dem seeti good more. il a sorti un projet extra extraordinaire ouais, ouais, ouais, que tous les hip-hop a apprécié que tout le tout le tout les hip-hop a apprécié man franchement non je vais le voir franchement ouais franchement fekk na ma quoi sincèrement et dama waxoon sax dama siy def benn post hein, en toute honnêteté tu as, et dinaa ko def parce que déglu naa déglu naa album bi et voilà quoi dope tu vois dope dope dope et je pense que soxla na tamit gars yi gars yi gën ko audience gën ko visibilité peut-être il fait partie aujourd'hui de la nouvelle génération nous xam nañ ko a aussi une partie nous savons tous tout le hip hop xam na ko mais dafa jot pour sénégalais parce que mon son album mon son album m'a vraiment marqué wax je lui ai dit tu vois eh, sincèrement si si si si biir nawle di sax xalaatoon naa waxuma ko nag moomam mais xalaatoon naa ñu def ci benn affaire mais disons comme j'ai dit par la suite ba ba démb ba bëkki démb amoon idée sauf bi ma dégloo bi ma dégloo interview gars yi laa pourquoi pas euh, def affaire bi bi bii di ñëw tontu leen comme que cette fois ci laajte nañ son mais maa ngi koy xel et maa ngi saluer liggéeyam na ko gars la gën la jox loxo gën ko jox doole parce que espoir la pour euh, pour ne pas dire hip hop mais pour la musique sénégalaise non dama lay wax ben affaire hein. euh j'avais voulu bu ma jëlee Akhlou Brick rek ñeu jël la pour Arru de mais je me suis dit bon je vais faire un petit break je vais donner l'opportunité à ce gars parce qu'il est extrêmement talentueux. waaw waaw ba nu euh Good Gunmore. Hmm, il, y a, beaucoup, il a beaucoup de talent. Il vient de sortir un projet mais extraordinaire. Donc, si pour nous, nous melni je gis gars yi ñu may euh, fàttali Sakine hein, moi Awa baax mon ami, tamit il en parle très souvent des des des clashs. am na loo am na loo wax am na wax wax dig dundu gis euh, Omzo Daala am na Dof Ndey on va parler de tout ça dans Aroubed, inshallah yebbi live damay trop long. Ah là je voulais juste avoir ta ta version des faits après. le reste on en parle dans arru c'est bon. Ouais, sur parce que gis aussi nous ko Sénégalais a accueillir rien. Hein. et j'en profite pour pour remercier les Niévois, hein. parce que nous may avons a dem rek di gis projet de di gën am ampleur motivés. C'est gën a motiver numéro yi on rester sur Instagram après nous avons engouement bi et l'équipe ils ont décidé de faire affaire bi sur YouTube pour que Niki ñi s'entende a jël seen temps dem niveau bi gars yi bëgg may aussi di di di di donc euh, war nañ ci waxtaan ci impressionné peut-être ci affaire yu ma Je ci ci yaatal bu ñu on en parle on en parle on en parle next time next time on en parle. et je voulais te dire merci. surtout Ngaka. Mm. ne supprime pas ce live laisse-le sur ta page. on en aura besoin. parce que ay yu d' accord dinaa ko fii dinaa ko fi bàyyi dinaa xaw ma nañ koy defee nag. wala wala. waaw mais mais mais bé booy nañ fi. man xaw ma nan laay génnee. ah est ce que doo couple benn yoon rek. ah. man xaw ma nan laay génnee de. yow xaw ma nooy génnee man xaw ma nuñ koy kiiwee. am na benn x bu nekk ci kaw noonu mooy ci Pape Sidi Pape Sidi yaa ngi lay dégg. oui. maa lay dégg ak lu biri wax leen ñu ah. jàppale seen booy dëkk yooyu noonu quoi Mbour am na talent. bu leen jàppale seen booy yi jox leen doole génne seen booy yi loolu soo leen gisaatee nga leen baaba nee na leen ngeen jàppale seen booy yi loolu je tenais à le. yaa ngi jaxase affaire bi ak waa Mbour yow seytaane nga de yow. yaa ngi jaxase affaire bi ak waa nga de booy sama rek. c'est bon Fall mën nañ kii. coupé sa live coupé live.